moo ñëwaat ak yéen ci seen jotaay jotaayu warattilil qur'aana tartiila di jotaay bi ñu ànd di jàngat qawaa'idu tajwiid te sukkandiku bu téereb Tuhfatul Atfaal bu Cheikhina Suleymaan al-Jamzuuri rahimahullah ñu toll woon ci buntub al-mithlayni wal mutaqaaribayni wal mutajaanisayni sunu jotaay bi wees ñëwoon nañ ci taarifaat yi baat boobu yi bu ci nekk mooy lan yan xeeti ñaari baat ñaari xaraf kon mooy tudd yan ñi xeeti ñaari xaraf mooy tudd mutaqaribayn yan xeeti ñaari xaraf mooy tudd mutajaanisayn buñ ko tuddee ba pare kañ lay nekk saxiir leeraloon nañ ko mooy bu fekkee ne xarafu njëkk wa dafa sukun bu ñaareel bi maas kañ lay nekk kabiir leeraloon nañ ko mooy bu fekkee ne ñaari xaraf yépp dafa maas kañ lay nekk mutlaq leeraloon nañ ko mooy bu fekkee ni wu njëkk wa daa maas wu ñaareel bi sukun bu nekkul benn ci ñett yooyu xaraf ñaari xaraf yu dend ci alquran te nekkul benn ci ñett yooyu ma borom xam dañ koy tuddee mutabaidaini moom tamit am na sagir am na kabir am na mutlaq ñu toll woon ci di wax atteb xeeti xaraf yooyu yi lan mooy atteb mithlayni bu nekkee sagir lan mooy atteb mutaqaribayni sagir lan mooy atte bu munta jaani seeni saxiir am na lañ ci jotoon a leeral waaye du ñàkk ñu muraajaa ko nafar ko nafar bu gaaw bu dee mislay ni saxiir atteem mooy al idgham mislay ni saxiir maanaam ñaari xaraf yoo gis ci alquran ñu dend te nekk mislay ni ba pare nekk saxiir maanaam xarafu njëkk wa sukuun wu ñaareel bi maas atteem mooy idgham foo ko fekk ci alquran joxoon naa ci misaal lu mel ni yudrikkum ولا اضرب بعصاك ولا اذهب بكتابي اك يوندمي بام دس تي بن بلاص بو خامني دينا فام اتب ادغام نعم وايي تاميت دينا فام اتب اظهار بلاص بو بي موي آه، سكته سوره الحاقه بلاص بيغا خامنتيني سي سوره الحاقه روايه حفص لي دينا فا سكت لي دو فا سكت آه، حال الوصل مالي هلك عني ما بريفير فليرال آه، سكت تي القران ñeenti place la Xafsu am yu wér ni ñëpp dëppoo nañ ci eh, benn wajhu la fa am mooy wajhu sect moom lañ tudda as-sakatatul arbaa li Xafs imam Shaatibi rahimahullah mi nga wax saktatu Xafsin inda wa saktatu Xafs wa saktatu eh, maa ngi fàttali bayt mu demee ala kullin eh, ñeenti place yooyu la lim yoo xamante nii Xafs moo fay sect keneen du sect آه، عوجا قيما ولما رقدنا هذا أك كلا برانا أك وقيل من راق عوجا قيما لا يخوف داي سك داي سكت بوصله آه، مرقدنا هذا بالسكت كلا بل رانا وقيل من راق نين سكتوا اللي تد السكتات الأربعة لحفص ndax wér na ni ñeent yëpp benn wajule mooy wajhu sakt ñaareel bi mooy moom képp ko am ci alquraawul ashra ci ñeent sakt yooyu bu ko defee bu dee saktub alxaqa ci maaliya halaka an ni foofii xafs bu fekkeen dafa wasl dafa am ñaari wajhu am na fa wajhu sakt ak wajhul idraaj bu idraajee ma ni mithlayni goog yi day dugg ci mithlayni saghir atte bi ñu waxoon sank da koy concerner moy daf koy idgham mali li anni way bu fekkene dafa sakt nak atteb idha idgham bi du ko concerner ti dañ koy idhar bu boba mali li anni ha gu nek ñu tudd ko ci gwet kon mithlayni saghir attem moy idgham foko fek ci alquran bam dess ben barab bo xamni dinañ ko fa idgham buñu idraje dinañ ko izhar bu fekkene dañu jàng bi sakt te ñaar yep nek halal wasl budé dee saghir mom atte mooy idhaar joxoon nañ mithal min qad samia ak id ja'ukum ak yunu démé demee kaddabat ak yenen kon foko fekk ci alquran mom dañ koy izhar muy muta jaani seeni saxiir ba mu des nag ci yenn place yoo xam dañ ko fa istithna istithna at yooyu ba ci njëkk mooy laam ci ra lu mel ni qur rabbi ma ngoog wala bar rabbukum boobu it dañ ciy génne barraana ndax ni ma ko waxee doon waxee sànq xabs da ciy sakt ñe ca dul ña dul sakt moom da cay dugg waaye xabs da ciy sakt kon laamu bal dañ koy izhaar ci xabs bal raana ñaareel bi ci ñu ci génne mooy xaaf ci kaaf comme alam naxluqkum foofu it dañuy idgham xaaf gi ci kaaf gi xafs ba benn wajulu ci am mooy idgham kaamil nga xam ne xaaf gi du dese athar am nañu idgham naqis mooy eh, xaaf gi dese athar maanaam sifatul isti'la gi feeñ tuuti loolu mooy idgham naqis ñetteel bi mooy nuun ci yaa ak waaw ak ra ak laam loolu moom day dugg نما كو واخون سي جوتاي بي سي احكام النون ساكن التنوين دا حرف ييب دا بوك سي حروف الادغام فوفا موتاخ ميم بو نيكي بو نيكي متقاربيني موم داي دوجو سي والو غوغو موتاخ دنجكاي استثناء سي اظهار المتقاربيني بايكو مو كونتينا دي نيك ادغام ناخ داي دوجو سي بونتو بوبي مانغو نينتال مو نيكون لام التعريف لام ال دنجكاي ادغام alxuruf alchamsiya lit lit taqaarub ba mu des laam bu dee laam moom laamu al dañ ko idgham ci laam comme allayli lit tamaathul mutamaasi mutamaasilayni ni lañ waaye bu dee yeneen xuruf yëpp daal xurufu chamsiya ada laam dafay nekk mutaqaaribayni dañ koy idgham istithna ko ci idhaaru al mutaqaaribayni saxiir كذلك المتجانسين مومت أتم في القرآن متجانسين صغير فوق فك مي الإظهار لمني فصفح عنهم واي ممت أمنا إثناءات أمنا أي متجانسين يوحمني صغير لن دون بفرن إثناء لين في قاعدة إظهار وواكن دجان إدغام لمني دال كتاء قد تبين ولمن حصدتم تواعدتم baat yëpp dañuy gis ni daal ak taa daje nañ daal sukun taa maas muy mutujaan seen saxiir ba pare ñu idgham ko kadhalika at taa ci daal maanaam bu fekkee taal taagee jiitu sukun daal topp ci tamit maas même atte bee la ñuy yore dañ koy idgham lu mel ni athqalat daawa allah wa lu mel ni qaala qad ujibat daawatukumaa ak yun dama lay gis ni taagi dañ ko idgham ci daal gi ànd ak ni mutajaani seyni lañ saxiir lañ waaye dafa bokk ci istisna aad yi mooy euh, taa ci taa taa ci taa bu ñu dendee ñoom ñaar taa gi sukkoon maas dañ koy idgham mutajaani seyni lañ dañ leen idgham ndax dañ koy génne ca qaadatu idhaar al mutajaani seyni saxiir mel ni fa amanat taifatun fa amanat taifatun wala id hammat taifataani taa uk fa amanat ak taa ut id hammat dañ koy idgham ci taa ndax atte boobu la fiy yor ñeenteel mooy daal ci daa lu mel ni id zalamtum id zalamtum id daal gi dafa sukun zalamtum daa gi dafa maas mutajaan seen sagir atteb idgham lay yor ndax ci istithnaa yi la bokk juróomeel bi mooy saa ci daal saa ci daal moom tamit mutajaani seen leen ndax ñoo bokk benn maxraj saa bu sukkunee daal topp ci maas mutajaani seen saxiir lañ atteb idgham la ñor lu mel ni yalhaz zalika yalhaz zalika ci boo wasloo gis ni saa ug yalhaz dañ koy idgham ci zaalug eh, zalika kadhalika baa ci miim baa ci miim lu mel ni ma ma irkab maana mu nekkoon cosaan li baa ak miim ñoom ñaar ñoo bokk benn maxraj benn shaftin la ñuy génne te baa sukun miim maas muy mutajaan seenu saxiir seen atte mooy al idgham comme ni ma ko junje kadhalika taa ci taa bu ta, dafa ñew sukun ta ñew mas dañuy idgham ta gi ci ta gi waye idgham naqis lay doon bu boba manam sifatul isti'la wala sifatul itbaq gi nek ci ta gi dañ ko fay bayyi mu dess nek athar go xamante day ni fi ta mo fi nekkon kon dañ ko ci idgham idgham gu gu woyef go xamante ta gi yep du dugg waye du and qalqala sifatul itbaq lu melni ni تو ولا بسط تو ولا لملني فرطتم ولا لملني آه، لئن بسطت بسطت فبدأنا جسني إدغامنا يوخنو يوخنو بسطت بطاقي جيختك وهي دسنا دسنا في صفة الإطباق بسطت كي دقلو تخرين دينا يجني في أمن حرف في نكون وخمني asaram mi ngi fi ànd ak ni idgham nañ ko ci biir xarf woo ci topp loolu kañ lay doon mooy taa bu fekkee ni daa jiitu taa te taagi sukun taagi maas mutajaani seen lay doon waaye mutajaani seen saxiir attem mooy idgham kon mutajaani seen saxiir attem mooy idhaar waaye xaalaat yi juróom-ñaari xaal yooyu ma lim dañ cee fu muti jaani seen yu mel nii amee rek attem mooy idgham ma ngoog bu dee muti jaani seen mithlay ni muti mut qaarib ni kabir mom mithlay kabir mën nañ jox misaal ma salakakum wala arrahman arrahimi maliki wala lu mel ni hudan ak yu ñu demee moom des koy idgham ci place yi may waaj wax palace bu dul place yii nag dañ ko fay izhaar maanaam atteem dañ koy izhaar lu dul ci place yi may waaj a wax lu mel ni tamanna na xam nañ ni aslu ji moo nekkoon tamanuna na ñu sukkoon gen nuun gi idgham ko ci gacades moo jur na am ñoo xam dañuy junj nuun googu bil ishmaam am ñu koy junj bil ixtilaas kon nuun googu cosaanam nuun gu damma la woon ak nuun gu fatax mithlayni kabir la woon waaye teewut dañ koo idgham ak lu mel ni qaala maa makkanni cosaanam qaala maa makkanni fiihi rabbi cosaanam moy maa makkanuni ñaari nuun lawoon woon la la nekk fee ñu def ko fii mu mujj nekk maa makkanni idgham ko ñaari nuun yooyu ñaar yu maas la woon kon mitlayni kabir atem mooy idhaar ba mu des ci ñaari barab yooyu mutaqaaribayni kabir moom tamit atem mooy idhaar foo ko fekk mutajaani seyni saxiir foo ko fekk ci alquran atem mooy al idhaar kon lii moo tënk attey mitlayni mutaqaaribayni mutajaani seyni moo xam kabir lañ moo xam saxiir mitlayni ma tënkaat ko bu dee saxiir la atteem mooy idgham foo ko fekk ci alquran lu dul benn place boo xam ne dina fa am atteem izhaar bu fekkee ni dañoo sakt ci place boobu mi mali halaka an ni haadal wasl bu ñu saktee day am atteem izhaar waaye bu dee saktuñu boobaa tawaslu day dugg ca yee bu dee kabir la mithlayni bu dee kabir la atte mooy izhaar lu dul ci ñaari place te mën bu dee mutaqaaribeyni saxiir atte mooy izhaar lu dul ci yenn place yu ñu sette junjoon naa ko bu dee mutajaaniseyni saxiir moom it atte mooy izhaar lu dul ci juróom-ñaari xaal yoo xam ne settee nañ ko yooyu junj naa ko joxe ci misaal eh, bu dee kabir la dañ koy izhaar bu dee mutaqaaribeyni kabir tamit dañ koy izhaar kon misle mutaqaaribeyni ak jaani ni kabir ak saxiir yépp dañ leen izhaar lu dul ni ci saxiir ci ñoom ñaar ñëpp am nay istisnaat bu dee mislay ni saxiir dañ koy izhaar mutlaqan lu ci benn baat boo xam ni am na ci ñaari wajhu kabiir gi tamit dañ koy izhaar mislay ni saxiir gi dañ koy idgham kon mutlaqan lu dul ci baat boo xam ne am na ci ñaari wajhu saxiir gi dañ koy izhaar it mutlaqan lu ci ñaari baat taman na ak makkan ni Eh, loolu mooy eh, leeraluk atteb mithlayni mutaqaribayni mutajanisayni incha allah suñu jotaay bi di ñëw ñu dugg nag ci babul mudud eh, di bunt bi mujj ci téere bi waaye borom téere bi séddali ko ay bunt ci biiram incha allah yéen a ngi àndoon ak Abu Taha ci seen jotaay wa rattilil qur'ana tartila ñu ci doon jàngat lenn ci qawaidu tajwid ngeen koy suivre ci ahlul quran wala ci compte youtube yi ahlul wala ci la maison du Coran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله الله رتل القرآن ترتيلا